askan wi dugg ci ndox dugg ci ndox mi laal. te waa kër gi gis nañu. waaw ñoom bu ba ba loolu. loolu ñu door koo séen door koo jël bu ñu ko jëlee di ko yóbbu ci optaan bi suñu borom dogal.